ma fa liggéeyal Serigne Bamba nag laa woo. kenn du Serigne Touba kenn du Serigne Bamba. lii lay laaj bariwul. kenn du Serigne Bamba kenn du Serigne Bamba jërëjëf Serigne Bamba. yéen ñooñu ci gannaaw jóg kenn ku ci ne nañu jox mu junni. ma def ko. kër Xalifa Mbergane lay xewe. mu dee woote. yor yoru màggal fii ci Touba Mbacké. mu dee woote. ëpp i dong. surtout Foro. gëm juma. xarit bu nit ñi. ma ànd say si. et eh, may ko ndox indi ndox ndox. maa ngi ñaari butéel. Eh, sàmm mu ñëw lii nga fekk waataa lii nga fekk moo ko jox ñii ma ne sëriñ Saliou mu ñëw lii nga fekk du hasard daa yegg sëriñ ma joxoon ne ko rek aw ma tubaab lekk may wax kenn moo ñëwoon kenn moo ñëwoon ni damay jébbul daal di jël sama bopp jox ko Serigne Bamba. duuf dugg ci biir islam par ñeneen ñaar fekk ko fi. Bamba nag lu mu ci mbagg la diir koy jubbee ku mu am nag Bamba lu muy séddale ci mbagg la diir la koy séddale dama ne dama ne. dama ne tey la neex bàyyi si si Mbàkke Mara sëriñ Saïd ak dégloo te ñëpp ak dégloo nag ak dégg sëñ Saïd dama ne ak dégloo nag waaw waaw léegi presse bi na ñëw nii rek na presse bi ñëw nii ci kanam nii rek ci presse bi lépp toog te amul dal. waaw waaw tey jii laa daan wax waaye tey jii laa ko war a wax sama yaram dal na ci Sëriñ Bamba. jullit ñooy seen mbokk jullit ñooy seen mbokk. ñooy seen am da koy bokk fexe ba xas kenn bañ jëw kenn bañ a fenn loolu mooy ak jullit dégg bu ñu jógee ci nag ñu jàngal leen nañu sangoo farata ak nañu jàppe ak nañu jullee. fi nekkee ñu fi nekkee ñun jàngal nañu ko. gis nga tey dugg ngeen ci diine islam mooy gën a xam ne si moom la suñu doon mooy gën a gën a wax ma leen wax mooy dugal nit ci diine mooy génn nit ci diine. ñu baal di seede mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluh loolu nag day gis yu bëggoon seen kenn dara kàttan ndax nit boo amee pas-pas xalaat ci boppam ba mu ko mu xam ne ko ñor mooy diine ji xam ne tey jii moom suñu borom gërëmloo da koy diine islam diine ji nag diine jàmm la diine nit tey su leen defee na ngeen yokk góorgóorlu te fu leen gis koo xam ne ci sëñ bi wax mu xamal leen li war ci ne loolu laa xam loolu war ci seen borom mu am toolam loolu itam dafa am xam nga am nañ tawfeex bu la ñuy tawfeex am ngeen parce que ngeen tàbbee ci yeneen ndax bis bi ñun de amuñu bi bis ma gën fonk lu dul bii ndax kat li mu gën gënal ñu ci bis bii la amee dañu doon liggéey borom soxna Awa sooy ñëw ci dëkk bi ci waxtu bi nga am pas-pas ak yéene ñu yéene sax da ngeen ko fonk saxal ko bañ caa dem bañ caa dem ñu nam fii gis leen daal di ànd ma jëlaat fi loolu day am pas-pas ak pëstéef nag ci la jullit bi nekk ci li sëñ bi wax gis na nga tey jullit bi ñooy seen bopp màggal bi kenn ëpp kenn ëpp na leen fi ñaanu sëñ bi wax dëgg xam njëmee la wala leen moo leen dab moo leen dab ci liggéey kon góorgóorlu leen bu baax a baax euh, sëñ bi Ismaïl Ismaïl Mbaye loolu xam naa ne xalaat na la dana jàll inama sadaqaat fuqaraa yi wal masaakiin. waaw waaw. waaw. xam nga ko jàng ndax man man amul kuréel moom moom la def. waaw dañu dañu ci wàllu doomu jàmbaar. waaw waaw. xam nga loolu doy waay. alxuraan la wax bi nga def waxee alxuraan la koy def. waaw waaw. dañu doon sëñ Saliou Samb. fu waay fu waay nekk rek comme léegi bi yàgg na fi dinañ gis sëñ Saliou wax sëñ Saliou dëkk. waaw waaw. waaw sëñ Saliou sëñ Saliou. ak sa dégg lii dégg lii.